que du ñaar ngeen. xam nga yéwén ngeen ah. ñaar ngeen ci am. Euh, collectivité euh, collectivité locale yi moom. Mhm. la AFP yoroon yëpp nangu nañ ko dañuy gis un candidat euh, AFP boo xam ne sax il avait légitimement beaucoup plus de chance de gagner benn waa APR ñëw. fokkati mbir mi ci ci ci dooleem bu ñu xoolee 12 ans yi. Mhm. et puis on a on a l'impression que AFP léegi ay symbole ay figure la rek. Mhm. mais ancrage parti bi. Euh, dafa dafa dafa dafa yolom est-ce que yéen pertu leen euh, ci ci ci seen ànd ak Macky Sall ba ba Macky Sall ndeysaan parmi tous les alliés yéen la ci gën a bëgg. Hmm. ndax yéen a ko gën a nangul lu mu lu mu sóobu ngeen jàppale ko ci. mais mais au au détriment de la vie et de la vitalité de votre partie xam nga madame dafa am ñaari concept ci àddina il la politique de la vie et la vie de la politique bokk. la politique de la vie commence depuis le berceau jusqu'au flanc inconsolable de la tombe la vie de la politique elle est dynamique elle n'est pas statique Moustapha Niass ku ko xam il fait partie des politiciens les plus racés de ce pays ku ko xam xam ni négociation la nàmp mu nekk nit ku dal un sage créé partem da nga def da koy vendanger. parti bi du partem de. non dama dafa moom moo créé parti. waaw mais daf ci ànd daf ci ànd ci aventure non non dama ne la. ak ñoo xam ne ils ont même niveau d' engagement que lui. ma xam nga dama ne la bu ma nee la créé parti Macky Sall du ma créé APR. ab ah. Abdoulaye Wade du ma créé PDS Senghor créé woon UPS. noo mën nangu di Moustapha Niass créé wul AFP. non moo ko foofu laa gisee man foofu laa waxee man expérience bu mu am et homme d'état qu'il est raisonnable et raisonné def nga dina vendanger parti bi. mais si monsieur le ministre. mais non monsieur le ministre. kooku sa appréhension la euh, AFP yoroon na une institution muy l'Assemblée nationale. waaw. Euh, xam nga Macky Sall li muy taggee Moustapha Niass nee na. Mhm. ba mu ne Moustapha Niass euh, assemblée bi nañ ci waxtaan président Moustapha Niass dafa nangu indi lu ko en fait ci Macky li mu jàpp mooy ci allié bi Moustapha Niass moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a généreux moo ci gën a def don de soi ah, xaaral rek monsieur le ministre non je connais les moo ci gën a def don de soi mais don de soi au détriment des jeunes de votre parti yéen AFP ak li ngeen joxe yëpp vous avez accompagné Macky Sall sans réserve mm-hmm. bañalu leen ko dara ah mhm. mais j'ai l'impression que président Niass moom parfois dafay fàtte ne moom moom il a fini moom kii na euh, vraiment réussir na ci lépp vraiment defar na àddinaam euh, nekk na symbole nekk na lu mu nekk mais euh, parti bi dafa am ay ay ay ay ay ay nit mhm. Zator mbay mi nekkoon à à l'Assemblée mënuñu ko investir dans une bonne position mu mhm. mën a nekk mu mu mën a nekk député ñu conseillé ko avec un poste de ministre conseil yow AFP benn benn ministre la am Euh, ci ci gouvernement bi AFP yoratul yoratul euh, institution mënatu leen sax def activité politique yu yu vos activités se limitent à soutenir les les résolutions de de de l'APR de Macky Sall s'il vous plaît waaw tu as un œil extérieur waaw par rapport à ça aujourd'hui da xam ne man non man léegi man xoolee AFP je suis la politique elle est dynamique elle n'est pas statique la relation Moustapha Niass Macky Hmm? du ma ko débattre parce que bu ñuy wax du ma ko fekkee la ñuy waxante du ma ko fekkee yaa ngi dégg seen relation ak seen ànd mën na am dafa dépasser ces conjonctures politique et politiciennes. waaw mais coloré coloré d'accord mais on est en politique aussi. je suis d'accord avec vous madame. aujourd'hui boo xoolee à l'Assemblée nationale l'AFP n'avait pas de vice-président. par générosité. générosité déglu ma rek par générosité ak allié bu la jàppale pendant de mandatures madame Lucie Cissé moo nekk vice-présidente de l'Assemblée nationale au nom du Benno de Moustapha Niasse si le PIT est rentré au gouvernement ca Benno Moustapha Niasse ba la depuis. deux mille. mais PIT dafa ber yoonam monsieur ma ni PIT mënul am benn ministre dans le gouvernement au même titre man man dama lay wax madame dafay multiplier par vingt les scores du du du PIT. excusez-moi madame dama lay expliquer aujourd'hui en 2012 PIT bi muy dugg gouvernement dafa dugg ci quota bennoo Moustapha Niasse. ce qui n'est pas normal. non Moustapha Niasse amoon Benno. waaw mais c'est pas normal. kooku normal na ak bañ a normal li ñu doon discuter table yi fekke woo ko fekke wu ko ñoom ñu ko doon discuter ñoo ci d'accord ba ñëwee loolu lañ teg ñu ànd di ci dox ba nëgë ni y a des choses yoo xam ni boo ko xoolee seulement comme ça à vue te xamoo li ci biir et quelle est la quintessence mën nga am la réaction que tu as mais l'AFP amul lu mu perdre ci splendeur am. mais je suis désolé madame. monsieur le ministre AFP bu demoon élection 2024 est-ce que sax di ngeen am di am président parce que activité eh, parti bi kenn kenn animé wu ko. président Moustapha Niasse ndeysaan dafa dafa nekk ci coloré boobu man xam naa ne sax am na yu bari yoo xam ne neexu ko mais mag la du wax. mais bul bul waxal Moustapha Niass kon yaa ngi koy tooñ da ngay xaar ba toog ak moom. ah mag la du du du wax boo toogoon ak moom. li transparent mooy ne moom kóllëre la àndee ak ak Macky Sall waaye kóllëre boobu fayuñu leen kon. nañ leen ko war a fayee la kon moom amuñu ko reproché. vous ma ni dëggalu la waa parti socialiste. ni fii la ñuy jël paaka teg ko Macky Sall fii. Euh, mais euh, ñoom wilaan di wilaan di fittaxu fële. non non c'est pas les mêmes dynamiques. Euh, mais si bokkuñu bokk c'est pas la même formation politique. formation politique bu parti socialiste seen méthode di ñuy defee kooku je le respecte yow yaa ko traduire paaka bu ñu teg ci man traduire ma ko noonu l'AFP dans sa relation avec l'APR s'assume assumer ko président Moustapha Niass. xale yëpp dem nañ. ñaata lañ ñoo dem kon. xale yëpp dem nañ yan xale. xale yi seen seen frange frange jeune bi dina mag parce que jeunes yi. je suis désolé parce que dafa mel ni affaire dafa am benn chape de plomb. oui nu ñu mënuñu avancer mënuñu wax seen xalaat ku ci. ŋàññ gestion gestion gestion coalition bi dal sa kaw. non je suis désolé je suis parti bi ku mu jël teg la na le c'est parce que dañu am suñu ligne ligne bi da nga ciy bokk bokk ci parti bi. ci ak suñu idéologie ak suñu rigueur nga ànd ci ak ñun mënuloo ko libre nga jël sa yoon mais jël sa yoon bu mu tax nga ne amuñu démocratie li ma bëgg moom la parti bi di def nga nekk benn nit dafa mën nekk. da nga ñëw posé ko ci table ji. waaw mais tamit bés bu parti bi yeewoo ñëpp ñu taxaw. lu leen lu leen APR teg ngeen ngeen ngeen nangu ko aussi. mais euh, parce que affaire bi suñu ennemi waaw mais du seen ennemi. mais vous êtes dans une coalition vous êtes des partenaires. ma ni APR du lu mu ñëw teg ñu nangu ko déedéet nous sommes des hommes dignes ñu ànd seen fulla ak seen fayda et nous ne di tout. léegi euh, déedéet. monsieur le ministre dernière question lan ngay wax xam nga ce qui est